asalaamaaleykum mbokku téléspectateur télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq waaye itam di leen baal àq di leen dalal jàmb nag ci seen émission bi di wareef ñuy ànd ak yéen altine talaata àllarba ba alxames si kàttanu suñu borom bi may am mbégte nag fa tabaarkalla macha allah di toog ak sama jarbaatu bopp ah borom ah, yaay yu baax yi bàjjen yu baax yi ah. fatumakàlla macha allah ah, mami Diop mi nga xam ne amul benn défaut yaay soxna Mbacke maa ngi lay ziar kon tey lépp maa ngi daal waay ah fatumakàlla macha allah nag mami amoo tey dag may neng neng amoo défaut amoo défaut yaay yaay yaay bàjjenu kii nu mu mm-hmm. doomu Ndoye Bane ba magas magas magas magas yaay bàjjenu magas hmm. magas maa xamoon ne man bëgguma ko may neng neng <laughs> ah di dama lay neng neng ba mu ne neng ndax dama gan tey ah, sama yaay fi nekk waaw loolu moo tax xam nga man moom day am bis yoo xam ne damay nangu rek day am na bis yoo xam ne moom damay damay bajantu kon xamal ni ci tey laa lay ruube nag tey ba ngay nelaw <laughs> barkeem xamal ne ci barkeem laa la defee. tey laa lay ruube ba. <laughs> yaa ngi xanaa ñu door fañ daan dooreeti waxati ne jërëjëfati Cheikhul Khadim sunu yaakaar tey ak mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Almakhtoum mu yàgg fi loolu te ak mbooleem xalif généraux yi di wax ne Sénégal nag réewum jàmm la ko fi xuloo di xuus booy layoo di tefesu kon lépp nañu ko def ciig dal mhm. yaa booy xanaa delluwaat di wax Camara Jibi Anta booy ne ko heure bi jotati na loxo yi dellu seeti tiit ci ñoom sax. waaw léegi nag eh, di nuyu sama yaay yëpp tey nag moom nuyoo bi dama koy tënk. <laughs> teg ko nag ci loxo yaay ji nga xamante ne moom dañu bëggante at te gisante wuñu ma di ko teg ci loxoom muy yaay Ngoné Ndoye kon tey moom damay damay wàccaat ci suuf rek xam ne tey sama yaay laa jàkkaar lool mais day tax mu gën a neex ndax xam nga démb bi may tooñ sañse bi sax xaw ma woon ne bii la may may tey ah. gis nga mu ñëw may ma bu gën a garaaw waaye yaay diggéen nag xam nga ku wal mburu tuddub dëkk tey nag damay tënk euh, lépp tey mhm. delloo ko askanu kër yaaba xari mhm. li tax mooy xam nga Cheikh yaaba yaaba mi ko jur ak soxna Aminta Lo mi jur Serigne Modou Moustapha ñoo bokk benn waajur bu jigéen mhm. waaye ba dem ba dafa jël manto ba ne ko regg naam tan mandi naa buntu fetal jox ma manto bi ma dem dikk rafaatale la ko ndax xamoon na ne mooy sangam kee kenn ku nekk nag ca la nga am ca ngay jaayu kon man loolu maa ko waroon a wax kon wax naa ko Jóob Yaaba xarimaam yëpp maa ngi leen di ziar. di leen dinaa la jox te mu histoire de. boo ma ko joxee ma dox tegal la xalam te yóbbu la ca case. su keroogee <laughs> xam nga ku def lu rëy dañ lay delloo lu rëy ndax ki jaay bakkanam ngir doomi bàjjanam demal ko ca armée ba ne ko reg naam tan man dinaa bundu fetal jox ma ma dem dikk rafaatale la ko eh histoire di dox ba nëga ni eh kon kooka bu ñuy nettali histoire nañ ko ca boole ndax moo ko defoon tay sëtam a ngi fi non boobu njëkk da ngay def émission ci biir émission léegi fu xalam di ca jaayu barke ba yaay borom ku ne ca la nga am ca nga mën a wane sa bopp waaw kontaan naa ci yow xam nga moo tax su ma lay nuyu di la jox sa wàcci waay <laughs> mbégte gu rëy fatuwakala maasàllaa la ñuy am euh, ànd tamit ak Zeyna bi nga xamante ne fatuwakala maasàllaa moo yore téléphone bi yore permanence téléphonique bi la fatuwakala maasàllaa lépp ci biir wareef Zey taa dégeen bisimilah taa dégeen nuyu naa la maa ngi lay fay ma chérie nuyu mami nuyu ah. ñu invité ah, tu es toute merci <laughs> ah. nuyu tamit téléspectateurs yi safoo wareef jàkkaarloog seen télévision waxtu wi di ko seetaan euh, di leen wax rek ne ñëwaat nañ ci euh, téléphone bi ak euh, page Facebook bu wareef numéro yi xam ngeen ko miin ngeen ko double 0221 33 841 non non 888 628 22 22 88 628 04 05 ak 88 628 65 65 bu fekkee ne nag da ngeen di euh, woote bitim réew si ngeen di doog a def double si jokkoog ñun ci nga xamante mooy seeni ay témoignages par rapport ak thème de la semaine muy émigration clandestine tata Degene commencé naa dajale ay témoignages nag yu yu doy waar. tata Degene yu yéeme yu yéeme ci Facebook bi. Mhm. Euh, que muy ci téléphone bi tamit waaye ba am na ay jeunes yu dëgg. dëgër bopp yoo xamante ne ñoom nee naa ñu gaal gi donc la ñuy gis ba tax na tata dëggeen continuer wax fi mu ne nii loo waxtu day ah, tey da oh, oh, oh, a pour mu wax moom mhm. tamit ah waaw léegi nag am naa tamit koo xamante ne ma nga itali jamono ji ah, ah. euh, jaar ci émigration clandestine mu dund ci lu méttee métti duma ci sore duma ci xuus xam naa ne ci kanam tuuti rek dama koy woo dugal ko à comme ça mu wax expérience am tata dëggeen waaye bu euh, téléspectateurs yi fàttali tam bu ñu bi gagné euh, dépense yi. Uh-huh. tey nag nen la def. benn uh-huh. dépense ci téléphone bi benn dépense ci Facebook bi parce que ñoom it dañoo am wàll ci biir wareef. Uh-huh. ba tax na dañ leen di ciy boole. kon ñoom it dañu envoyé seen i message en privé. Euh, yónnee seen i ay numéro téléphone incha allah ñu tànn au sort ki ñuy jox deuxième dépense. loolu foor na loolu foor na. xam naa ni dépense Adja Ngoné moom ngay jaarale tey ci Facebook bi. waaw mbégte gu am tamit <laughs> Ngoné Ndoye madame le maire kenn dootu la présenté madame le ministre ñu lay sargal di la jox sa wàccuwaay fatabakàlla macha allah xam nga ni mbégte gu rey la ñu am toog ak yow ndax sax nga ci askan wi fatabakàlla macha allah nee naa nag fii nga bokk fii nga toog moom fi nga bokk fatabakàlla lu ma lay jox nga nuyu askan wi <laughs> jërëjëf ajëratu dëggeen Chimère Diallo jërëjëf ajaratu di ngeen chimère baabu ndax ñaar ñaari tur yooyu benn bu nekk dafa am ci man signification macha allah maa ngi nuyu aussi mami sama doom ay at te fekk ñëwagul sax wareef ba ñëw wareef ba bésu tey ñuy soogaa gisante di nuyu bu baax itam Pape Cheikh Diallo sama taawu nekk ndax maam Fatou sama doom bu jigéen bi Pape Cheikh man ak moom 2003 ba léegi mu nekk Zik FM ba mu nekk si fii tey tey la ma mës a gis di ma waxal lu baax li ma defal lu baax kon mel na ne waxul dara ngir xaalis li muy wax di wax ni dama fay jaar ak damay yooyu ay waxtaan la rek xamuma mosumaa gis mais lépp lu ma liggéey ci commune ak lu ma liggéey ci àdduna te faat leen na ko faram fàcc ko présenté ko xamuma yàlla na ko yàlla fay baax nuyu borom kër gi alaaji Youssou Ndour sama càmmiñ sama xarit di ma seet di ma yër di ma lijjanti di ma toppatoo di def lu baax nag loo xam ne ci réew mi bésam a ngi mm-hmm. mm-hmm. des na ci kanam kanam mm-hmm. macha allah wërsëgu ñëpp la yal yàlla aar ko suturaal ko taxawu ko nuyu Sénégal Sénégal nag biir réew la ak bitim réew kenn ku nekk yal suñu borom teg la ndeyjoor suturaal la taxawu la ku làmb suñu borom yàlla na nga ko daj ku ko soxla yàlla na nga ko gis nuyu nag ñi ko fi toogal li tax mu mujjee leen pour xamal leen ni ñu ci ñoom rek la ñu am ñi ko fi toogal di sëriñ yi di xalif généraux yi di kilifa diine yi kilifa aada yi ñu yàlla jox baat ak kàddu ak sañ-sañ kenn ku nekk yàlla na yàlla defal jàmm alhamdulilah amin amin kontaan nañu ndooyu Malick Marème fatabakàlla macha la jaar ci sa jëmm ji du nuyu say soppeek say am di jàmm ak say mbokk yëpp fatabakàlla macha allah mhm. on off mu ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di xam ne rek caméra yi yow jinne caméraman yi fu ne li ñuy gis yëpp foog ma lay teel a nuyu léegi dina ci dugal bu baax a baax a baax ndax li xale yi di wax Ndoye Bane noonu laay nuyoo on off. Mm. te soo nee pim ñu tijji la micro nga nuyoo. <laughs> macha allah di santaat yàlla julliwaat ci sang-sang yi bu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa allah ñuy àndaat rek ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi. Mm-hmm. ak ci bitim réew ki kilifa diine yi. di sàkku ci ñoom ñaan. waaye delluwaat di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yal na yàlla ñor di seen fan wéral seen cër ci barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñuy àndaat ak yéen ba tey ci seen émission bi di wareef télévision Futurs Médias seetu askan wi ziar kilifa aada yi ñaan buur bi nga xam ne lu fi sotti rek ci coobareem la moom yaa rabbi yal nañu mottali lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp lum ñu ci defal rek yal nañ ko muurloo ci barke alquran al karim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 suñu génnee ci hôpitaux yi nag dinañ dugg ci prison yi ndax béréb yooyu jombul kenn nañ ci bàyyi xel ñu jub lool lool lool ña nga fa ñu safaanoo nga fa waaye ànd ak lu ci mën a ne sañ nañu nag ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy tege na tudd kenn yal leen ko teggil ci anam bu gën a gaaw ba ngeen dellu ci seen biir njaboot mhm. te yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alxuraan al karim mama xanaa euh, mami ñuy nuyuwaat oustaz Tayib Socé fa mu nekk fa tabarakallah mhm. macha allah di ko jox bàcc euh, wàcc waayam mhm. di nuyuwaat Cheikh Alassane Sène nabiyee bu mag boobu fa la macha allah di leen bàyyi xel bu baax a baax euh, di yëkkati waat baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun liñ ci namm rek mooy jaale képp koo xam ne jamono ji ñu toog di waxtaan yaa ngi ci tiis mhm. yaa ngi ci naqar waaye nangu dogalu suñu borom bi ndax àddina du kër di jaale euh, soxna Mariama Touré madame Thiam mhm. mi nga xamante ne frère ba nekk euh, jëdda aas moo génn àddina madame Ibadeer Mariama Touré frère am aas mhm. moo génn àddina ndeysaan bërki démb rek xam nga way juróom jigéen waaye yàlla moo demee noonu fatabaakàlla macha allah te ma Touré kenn la ci ñun a ah Adja ma ñu ngi lay jaale sa frère bi nga xamante ne moo wàcc liggéey foofu ca jëdda di ñaan suñu borom bi atteeku ci yërmande mi yóbbu ci àjjana ñu gën a kawe ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax àddina bi demal maa ngi ñëw rek la mhm. fa tabarakallah masha allah euh, euh, ñu ngi ànd nag ak Coca Cola mi nga xamante ne ne que moom moo ñu gungee ci lii nga xamante ne ne que moo di wareef ànd tamit ak li nga xam ne moo di karoskin mi nga xam ne si bopp tamit moo ñu ko defaral yooyu yëpp fa tabarakallah masha allah ñu fas yéene ñu gungee ci thème bi euh, waaye mami mhm. coow li commencé na waaw su ñu waxee mbëkk mi wax immigration clandestine am na moment boo xamante ne rek ñu ñu toog ñoo xam ne dundatuñu. Mhm. ndax lim leen yóbbul dafa bëri. dem nañu ba gëstu xam ne cimetière bi gën a mag fu mu ne ni à ciel ouvert mooy océan bi. Mhm. te suñuy doom rek a ci ne. am na expression boo xam ne démb mameen koy wax ci jën yeeg yooyu mhm. yëpp dafa nekk lenn loo xam ne dañu defoon jóge na fi mu nekk phénomène bu doy waar ñu gis ne ne que dafa gën a takkarnaase lan moo indi phénomène bi gën a takkarnaase suñu doom yi lu tax tooguñu xam ne l'Afrique a besoin de de ses de ses enfants mm-hmm. sénégalais lu tax tooguñu xam ne la ñuy dem di dem ci yeneen réew yi suñu toogee def ko ci réew mi réew mi dox mm-hmm. ñu dem ba nga xamante ne ci ku ko xam ak ci ku ko xamul am na pan bu énorme ci suñu société mm-hmm. boo xamante ne màbb na ci ci géej gi la màbbee te ci désert bi la màbbee suñuy doom di dem rek di dem rek am na ñenn ñoo xamante soo leen gis doo leen laaj dafa am at moo xam ne dafa am benn xale boo xam ne mooy ñooñu doon euh, yenn genre huile cuuraay yooyu. waaw huile cuuraay bi. Mhm. nga xamante ne ne que ndeysaan euh, euh, dafa am sama kër sœur bu nekkoon HLM boo xam ne foofu la daan taxaw ci atelier. Mhm. ba ma fa amoon su ñëwee rek teg huile yi xam nga damaa toppi xaj. Mhm. su ma ñëwee di xeeñtu naan ko xellil ma bii xellil ma bii ma toog ab diir gisuma ko. ministre mooy tàmbali doon wax affaire mbëkk ma mm-hmm. mm-hmm. ma toog ab diir man daal su ma tëddee damay jékki-jékki ma naa ay waay xale bi moo tëdd ambaat dafa bokk ci gaal gi mm-hmm. xale bi gisatuma ko déggatuma ko nga gis ay yoo xamante ni yoo xam ne déggatoo leen gis léeg-léeg gis kenn ku doon jaay sa koñ xale ba déggatoo ko gisatoo ko donc ay incertitude nga gis caaroy bi koñu lëmm boo xamante ne ay xale yu leen mu nekk phénomène bu doy waar kon xam naa ni dama lay jox ak fàttali jox ci tamit nag euh, euh, su soxna su tedd si ñu toogal moom tamit mu ñëw ndax am na ay paquet yu bëri góone ne am nga ko nga yaa booy heure booy ubbi tem mm-hmm. naan naa ko ubbi nii ndax ñun li ci suñu kanam rek la ñuy gis mooy conteneur bi mm-hmm. mais soo ko ubbee nag bay wàcce paquet yi ndek ci ngay dem ba amum tiit nag mm-hmm. ndax ci ngay dem ba yoo xamante ne jàppoon nga ne amu ci wala nga gis yoo xamante ne jàppoon nga ne sax amu ci yaa dégg li ma la wax démb nee naa la yëngalaat nga kër yu baree bari ndax xol yu bari tooyaat nañ waaye heureusement ndeke bëppaat na maire yu baree bari yoo xamante ne fas nañ yéene nag dagg seenu yet teg ko ci seenu njaboot li nga wax ci caaro yi xam nga tamit benn quartier mm. mooy li ma wax ne la ñun dañu soxla ay góor dañu soxla ndaw ndax ndaw mooy nekk magu ëllëg mais dañu soxla ay góor ngir ne xale yooyu ñoo fi mën a nekk ngir ëllëg ñu takkaat ci xale yu jigéen yi mën a yokku xeet wi donc ñooñu bu ñu demee àndandoo naax saay ay juróom fukki xale ay téeméeri xale ak nàngam mm-hmm. xamuñu ñaata nit ñoo ci faatu te li ma jaaxal mooy man bi nga ko waxee ba léegi loolu dafa nekk sama xel mm-hmm. mooy est-ce ngi def calcul bi est-ce Ndoye Bane wax démb ci désert bi man bi ma ko xoolee sama yaram bi daf doon mënatuma ko woon sax xool fan mm-hmm. parce que tamit nit ki nit rek la mm-hmm. nga xool sa naan mm-hmm. wala naaj bu tàng wala métit moo ko jàpp ba mu muy dee ci yenn façon dee ndax la ndax barça wala barça alal ju bari wala bàmmeel bu sori ma ne xëy na dund ci tuut si la yàlla jox mm. dañu suul la fii ci mbokk mm. bis bu dee jotee yàlla la nga bañ a xaru man jàpp naa ne loolu moo gën mais yaa dégg dafa am ko ma waxaat démb leen mooy li nga ubbi ne est-ce que du xale yi dañoo yàkkant ma maire bi dellu siwaat ci li ma la waxoon ne la ak yàkkamti bu ñu juree doom rëccu rek rëccu ndax da dem ba ca désert ba nga naan bu démb bu doon tey mm-hmm. nga dégg xale bi nga xamante ne yaayam nee na ko boo demul ma bala lijjanti na ba dugg ca réew ma mm-hmm. mais ci yan condition la fa nekkee mm-hmm. SDF yaa ngi fa ñeneen ñi ngi fa am na femme bu ma envoyé message nee na moom bi mu leen gisee dafa rusati wax ne moom sénégalaise la nee ma parce que ñoom seen deret di ko yóbbu mhm. loolu tam am na keneen ku ma ko confirmé ma suñu wàccee li ñuy njëkk a def mooy kuñ ci defal test mhm. gis ne amoo dara lu la kii mhm. li lay njëkk def mooy dañuy jël ci yow deret ba pare yóbbu ñoom duufal seeni banque de sang soog a nag di lijjanti say loolu kon yaakaar naa ne yaay ngoone mi liggéey ci loolu moo ñu ko gën a xam mais daal yaay diggéen li ngay bañ a dégg bato yaa ngay këpp jën yaa ngay nit ñaa ngay dagg la. Mhm. Mhm. jërëjëf Adja Degen li may dimbalee nag ci kanam mooy nga di ma fàttali. Mhm. parce que mun naa dugg ci benn poñ. ba fële foo xam ne dinaa bàyyi origine la ma taxoon a jox. tellement de dossier et un peu compliqué. Euh, di baalu àq nag ñi may dégg déglu euh, wax ni xol laa ñëwee. xolu way jur xam nga boo xasee ba am doom wala ñu amal la ko ndax ñaar yëpp way jur la boo xasee ba gis valeur nit xam li mu mën a jëriñ bëgg koo ñàkk man a bala may dem ci xale yi damay dem ci lu tax ñu dem la société sénégalaise mhm. suñu société bii nga xam ne ñun ñëpp dañ koy tiitaroo mhm. dëkku teraanga la mhm. dëkku sutura la dëkku muñalante la te man gisuma ko ndax man duma fen gisatuma loolu Sénégal Sénégal gisatuma fii muñalante gisatuma fi compréhension mm-hmm. Mm-hmm. ci biir néeg bi mm-hmm. gisatuma fi solidarité entre individus gisatuma la présence de la communauté chez les individus gisatuma fi euh, ngëm yàlla boobu nag li tax ma di ko mujjee mun na moo tax ma di ko mujjee li xew mun na fëgg fëgg koŋ-koŋ bi suñu borom yàlla defal lu tax mu def ko lu tax mu wax ak jullit yi fan la jëm ak ñun donc euh, société bi tey déjà environnement bi rek melatul man na ma dunde woon Médina mhm. dunde ko coow leen mhm. mooy sooy génn ki dëkk say ki dëkk yow ci koñ bi am ci yow droit mhm. am ci yow droit de am ci yow droit de contribution war laa jubbanti war laa gunge war laa jàppale war laa nëbbal war laa feeñalal kooku léegi dafa jàpp njàmburam su doon sax jàpp njàmbur gi dafa doy def ci yem mu doy waaye yemu ci daf ciy booleeg jël wax bu ñaaw wala bu tegginuwul di ko colporté muy dugg néeg ak néeg te dugg ci sa néegu yaay ndax su duggoon sa néegu yaay sax sa yaay jubanti la mais du fa dugg ba tax na léegi communauté au départ l'enfant et mal encadré xale bi su juddoo su ko yàlla ci njalbeen mayul way jur yi am dalu dugal ko déjà mu xam diineem su xamee diineem mooy tax mu xam mooy kan mhm. way jur ba yaru ko ci cosaan mhm. lu dul di ko yar ci ouverture rek mhm. garderie d'enfants ak Europe ak France ak Occident. Mhm. ku ci def sa doom. Mhm. di nga gagné diplôme de. Mhm. waaye doo gagné doomu aadama doo gagné sénégalais. parce que nit ku amul diine amul lislaam amul liimaan. du doomu aadama. su fekkente ni amul diplôme amul amul amul cëslaayu àdduna. xamul fu mu bokk hibride la. amul culture amul cëslaay ñu góor góor nag ba ñaar yooyu amatul ci néeg yi amatul ci kër yi lan ngay góor gu jar na la nga jënd diplôme jox ko sa doom ñii jël sax seeni doom tey am mën-mën bi am pexe yi fayal leen njàng ba ca Canada mm-hmm. est-ce que xale yooyu mën nañoo dund sax ba liggéey ba fay la nga ca lef mënuta am donc la communauté mm-hmm. est-ce que son rôle est mm-hmm. yaay ji bëgg na am alal ju gaaw lan moo tax yaay ji duwut alal bu gaaw lan moo tax yaay ji duwut tekki bu gaaw wujju wujju peccer ko mhm. dëkkandoo paraître mhm. lamb diis mhm. mbubb tagal sorano grand théâtre est-ce que jar na ko batiment boo xam ne àndul ak xel àndul ak sago àndul ak teranga lu ñu koy doyee xanaa européens yi sax boo commencé liggéey dañu lay naan kër gi yaa ngi koy fay ci vingt ans boo nekkee locataire propriétaire nga ku amul njëg dëkkoo donc nit ñi war nañu yemale seen bëgg-bëgg ak seen am-am indi yàlla suñu borom xam ni mooy dogal mbiri ci ni mu ko neexee mën nga am addunay doom mu décidé ne kenn moo ci man soo jëlee kenn kooku nag teg ko ci kaw ay magam mm-hmm. xeeb ay magam mm-hmm. gumbu xataal ay magam mm-hmm. xoño ñooñ leen ci biir kër yi ba xale yi bu ñuy génn di mbëkk gaal yi moo leen di gënal toog ci kër boo xam ne kenn du leen considéré xoñoñol seen xol yi yëngal ko soo génnee booy wut soxna kenn du la wuyu communauté bi boo bëggee dugg sax ci jàkk ji di julli soo teelu la jóg ca gannaaw ngay féete doo féete ci kanam ndax bokkoo ci ñuy contribuer par weer ci jàkk ji fépp foo dem léegi day am discrimination ndax xaalis kon communauté boobu est-ce que taxaw na wàllam li ci des mooy li ci topp mooy est-ce que le parent en tant que parent jur doomam mhm. peese na valeur doomu aadama mooy lan mhm. est-ce que xam na li ko jàll jox lan la mhm. talu ko moom ci boppam mu ngay wuti nit ñi lekk mhm. su xasee ba jox la lekk xamoo loo yendoo mhm. xamul loo fanaanoo xamul ci lan nga nekk xale yi nekk ci kër yi di jaay drogue ba mën a génn suñu génnee jaay drogue àll ñu tëj leen ci àll bi mbaa ñu rey leen dëgg la yàlla dogal ci leneen communauté bi ci boppam xëy na luwaa ñëw na sax tax ñu ragal ndax koo laal doo moom léegi mu kalaame la waaye tamit weesu nañu ñun la ñu am ci tëngéej am ko ci cëw muy suñuy pénc di barabu waxukaay di barabu defukaay kenn ku nekk nag def sa parent programme mbokk ak ndimbal mhm. mu di la taxaw mhm. amatul ci suñu biiru communauté mhm. waa xale bi kon dafa fëx bi muy génn dafa fëx bi muy génn ndax ba mu fëggee état état amul kol amul politique de développement bokk bu yella ak moom boobu beneen paquet bi may ibbi la ci kanam parce que collectivité locale bi am na lu mu ci sañ-sañ mais état bi am na ci sañ-sañ mais ajaar Adja Dégène dama bëgg nga baal ma rek ci ñetti étape mbëkk mu njëkk mi nga xam ne en 2003 moom laa xam. bokk ak mbëkk mi ñëw après 2010. bokkul ak mu bees mi ñetti xeet lay bokkul. ñetti façon bu njëkk bu 2003 bi. Mhm. damay taxaw fii di ci gërëm xale bu ñuy wax sukk ba ca Tëngéej. Mhm. moo ma fekk sama bureau en tant que maire. Mhm. ànd ak juróom benn fukki xale. mooy 63. juróom benn fukki xale ak ñett. ne ma ñii ñëpp dañ doon wut carte. pour nekk mareyeur. carte bi am na tur. carte bee xaw ma kart naka la tudd. ñu wut ko wut amuñu ko. te ñoom loolu mooy seen métier ay marin lañu. dem géej def fa ay weer liggéey mais carte bi jafe na léegi Sénégal kenn mënatu ko am parce que lan am na yeneen bateau yu ñëw di liggéey ci suñuy waax ànd ak seeni i âge nit yu jóge ci seen i réew soxlaatuñu xale yi réew mi ma woo ca ministre bu ñuy wax Djibo Ka moom la tombé loon ministre de la pêche. ko situation bi. mu ne ma mun naa la baaxe ay gaal. ak i moteur ndax dañoo bëgg liggéey. jiba ko moom a baaxe ay gaal ak i moteur. ma ànd ak sukk ba yóbbu ko ci communauté Thiaw leen ba. xale di ca liggéey ba fii ñu toog tey. jamono bu tam jotee. xale yooyu dinañ génn ci seen kees alal. def ko ci jàq yi. ne leen soxna Ngoné Ndoye leen ko yónnee. ci teraanga bi mu ñu joxoon. kon bëkk moomu amoon ca boobu jamono. xam ni pêcheurs yooyu. dañu amul woon jumtukaayu liggéey. boole ci pillage bi nga xam ne ci géej gi Mhm. moo tax ba tëngéej bi nekkoon bateau étranger yi mhm. nekkoon nurserie xam nga mhm. xamoo ni jën yëpp foofu lañ daan ñëw di nen si en face su ko si ci suñu géej googu ci cëw leen foofu lañ daan ñëw nene ba jëw géej di baax pollution bi nag écosystème bi yëngatu. Mhm. ànd ak euh, bateau étranger yi. Mhm. mootuñoo for foofu jën. Mhm. ba tax na ñoo ñooñu la leen taxoon dem. raréfaction la woon des ressources. yi nga xam ne dégg naa ko ci seen reportage bi passé. ci waa Ndar yi. moo tax amatuñu woon jumtukaayu liggéey. ndax li bu yàgg naa xam fan la Espagne ne ak. te demu fa li bu yàgg naa xam yoonu géej te demu fa ndax ñun bu ñu dëkkul tefes bëgguñu feneen ñun tefes la ñu bëgg di toog di fa nekk ak suñu famille suñu fa génnee rek musiba am na donc ñu dem ba jaayatuñu destination bi léegi ñoom ñooy war ci gaal yi di dem kon àdduna tukki na boobu mooy émigration bu njëkk bi émigration bi ñu ko xeexee ñoom ak waa Union européenne état bi ba def ay barrières xale yi dematuñu booba ndem si yàlla Xadafi mi ngi fi parce que tam Coty léegi. Mhm. dafa libre. Mhm. la ko tax libre. Mhm. mooy góor yàlla ya fa yàlla tegoon lañu faagaagal. parce que tam wax boo ko laalul dalay gaañ. Occident tam nay jël ay ay ay responsabilité ndax fa laay tëjee. Mhm. man du wax rek soxla damay wax solution. Mhm. Mhm. fu ma la tegal tey soxla rek dinaa la tegal solution bi koy ibbi. kon bu 2003 bi mu am beneen étape. bi 2003 bi ñëwee. beneen étape bu bees dafa ñëw léegi mooy gan ñi doon garder frontières yi. nekkatuñu. la ko dalee Égypte. ñu yëngal ko. yëngal Tunisie. yëngal Libye ñooña dee. ba ñu ko ah, Lampedusa ibbeeku nag mhm. tali bi daal di yaatu mhm. comme nag ñun dañu bëri arabisant mhm. ca côté Kolda surtout parce que ñoom ñu ëpp ci boor yooyu ñu xam yoon wi commencé nag di jéggi parce que dafa yomb boo tolloo li bi rek xam ne jéggi dem Lampedusa c'est facile ñu nekk fii nag di ko dégg commencé di jël oto moo leen di yóbbu ci désert bi ba yegg désert bi pour mën a dugg nag ci biir ci biir li bi pour mën a traverser mu indi une autre boobu nag problème bu réer li cest à liñ ci mën a wax yépp ci jigéen ñuy dem. Mm-hmm. xam nga góor li muy metti metti mm-hmm. jigéen mooy société. Mm-hmm. jigéen ñi nag. ñenn ñu for ci ëmb mhm. ci yoon wi ndax jaxasoo góor ñi ñenn ñu jóge fii ak seen ëmb dem te bu ñu woon boobu for nañu lool mhm. am ñoo xam ne seeni doom la ñu àndal pour dem mhm. parce que jigéen muus la day ŋànk fu mu jëm ŋànk njabootam donc ñooñu ci biir désert bi ñu nekk lañ fay dund beneen dossier la parce que lépp buñ ko bëggee ibi benn du mat donc foofu nga xam ne amatul frontière amatul garde ma ciy rendre hommage Tony Blair ndax kilifa boo doxee ba xam ne da def erreur da nga koy nangu ba ñu nangu woon ba ñu jëlee seen loxo dugal ko ci yenn kër yi mhm. ci la kër ya tas ba siri mhm. loolu lu am solo la mais li tax ma di ko souligner mhm. dama bëgg suñu chef d'état yi ko ci loolu nag pour laaj pour laaj ndàmpaay parce que nag immigration clandestine bi am na. topp ci di ko wax xolli góom la. topp ci di ci rabâché xolli góom la quelle est la solution. mais mais dañuy taxaw balaa solution. demaguma sax solution euh, troisième point. waaw balaa balaa demaguma fa sax waaw parce que dañuy taxaw ci euh, il nit ñi xam. qu'est-ce qui passe. Mm-hmm. maa ngi deuxième point. waaw parce que mm-hmm. ba léegi am na ñenn ñoo xam ne dañuy laam-laamee xamuñu qu'est-ce qui passe. te ki nga xamante ne nekk war na xam dañ koy wan ay image wala boog mm-hmm. ñu wax ko dégg. dëgg la. Euh, Zé Diouf xaw ma ndax euh, Zé am na ki mu doon bëgg. Euh, témoignage am. Ah, ah, ah waaw léegi am na dañuy dem seetaan benn reportage. dellu si mu am témoignage boo xamante ne benn immigré ànd na ba propre frère am moom moo ko suul ci désert bi mhm. soo gisee nee na ba léegi mu ngi yore film bi kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko dund balaa boobu nañu laaj sénégalais yi li ci seen xalaat ànd ak ñu ko dund dellu si xam nga lu tax euh, ngóore mhm. am nañ temps mhm. am nañ temps étape par étape kàttanu yàlla dañ koy def incha allah ndax paquet yi bëri na te mami dafa yor kaar alhamdulilah <laughs> waaw ñu dem ñu dem ñu dem seetaan <laughs> alhamdulilah alhamdulilah ndax caare sama immigration clandestine lëmbee woon réew mi lool rawatina si nguuru président Abdoulaye Wade mel na ni lu des tey ji lu dul ay fàttaliku. loolu instant yi jamono weesu na ko parce que boo xoolee ñuy jóge bitim réew di la jooytu dafa bari te bari nañ ñu fa nekk jaay seen matériel fii dem après zéro lañ mujjee ñëw fekkaat la fii aussi di foraatu. te boo xoolee bu ñu fi toogoon ba heure bi dina gën a demee neneen. tekk tekkaaralu géej gi mel ni luy nëbb ay yoonu tukki yu kenn ci réew mi bàyyeetul xel benn yoon ci gëtu ji jamonoy baax saa wala baax saak sunu moytuwul mu dellu ci waat. à tout moment nag gars yi mën nañ jël gaal gi parce que instant dafa dëgër ten amul géej gi léegi dafa bëri yàq-yàq comprendre moo tax quoi à tout moment léegi da ngay da doon ñeent nit ci gaal benn booy jën sax da lay pour nga jàpp ko xam nga dèjà jën amatul si géej gi benn booyu jën mooy booyu weex yi benn benn bu booyu sax da lay tëj xam nga léegi nag loolu nag bu yàgg yàgg ni day indi bay indi benn affaire bi nga xamante ne parce que doo nekk ponkal bi xam ne yor nga di yor macha allah ne yàlla bindee yow ngay dem mënoo am sax loo mën a yóbbu pour sa kër pour sa njaboot dund. fii si géeju Soumbédioune bi xel yi riiratunu jëm si lu ni mel. jamono jël gaal di dem Europe jamono weesu na ko instant bii fi nekk dafa metti quoi. dee yeeg xam nga dugg si gaal nit xamuloo ko xamoo ko mu cosaanoo ngeen daja si gaal xam nga yooyu yëpp da ci da am yoo xamante ne ni maanaam day day day metti quoi. gars yi moom xam nga léegi Espagne doxatul moo tax ñu bëri dematuñu léegi loolu mooy problème bi am na sama boo yoo xam ñu ngi foofu mais ñu si bari dañ ñibbi si waat à zéro commencé waat à zéro ñun ñi nekkoon fi sax ñoo leen tane léegi dem fa léegi moog zéro ñoo yem parce que ñun ñu toog fii di liggéey actuellement nii ñun ñoo leen mën parce que bu ñuy am journée journée junni toog suñu wetu njaboot di leen gis moo gën ñu dem Espagne. immigration clandestine bi lëmbee tey réewu tugal yi doonatul ay doomu réew Afrique yu mel ni Sénégal ñoo ko sookee waaye ay doomu réewu araab yi. waane xel yu bari di ñaaw njort ak di tiit ci classement bi boole sunu réew ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci àdduna daal di dekkilaat li yóbbu ay téeméeri téeméeri doomi Sénégal fële sa baax sax. pour man Sénégal am na xaalis parce que dangay gis tey oto bu gën a kaaw même pas semaine nga gis ko mu daw fii ci corniche bi comprendre nga ñu kaañ bi ñoom ñu war a génnee moo ne ngi ci banque bi dimbali jeunes yi ñu joob société yi ibbeeku gouvernement bi moom boppam la fi nekkal pour man. nekkul fi jeune quoi boppam la fi nekkal ndax bu fi nekkaloon boppam usines yi tëj lu mu métti métti métti mën na fi def financement usine ibbeeku jeunes yi liggéey mën am dara avancement Sénégal avancé mais pour l'instant nii métti na de te bu yàggee tuuti waxuma la sax dama ragal waa dëkk bi si boppam sax ñooy màbbee ko tëmbal gaal par force pour dem jërëjëf kon mbokku téléspectateurs yi gis nga ñuy remercier bu baax a baax Koli euh, ak Kumba euh, Koli ak Kumba ñoom tamit euh, ak Apulaay ñoom ñëpp fatabakàlla macha allah dañuy jàpp bu baax a baax ci reportage yi mhm. nee naa la tamit maa ko dund mami lu doy waar la am na témoignage boo xamante ne Zey mi ngi ko bëggoon mhm. jël ci benn immigré mhm. Zeyna allo waa waaw Talligueye waaw maa ngi lay ziar di fàttali ne yaa nekk ci permanence téléphonique bi nekk tamit ci Facebook wareef mhm. mu am ay témoignages yu bëri yoo xamante ne nekk am nga ko ci xaw ma loo ñu mën a may en attendant tamit nga am témoignage phare bi ñuy xaar Euh, Tata Degene euh, xam nga semaine bu nekk ak na ngay dundee émission bi. Mhm. semaine bu nekk ak émotion ya ngay am. Mhm. semaine passée en fin euh, de semaine ci jeudi bi tiitaange laa àndaloon. Mhm. semaine bi nag tristesse. bu rëy laa yëg par rapport ak nit yi nga xamante ne ñoom ñooy témoigner. di wax seen jaar jaar ci page Facebook bi. ak surtout nag tristesse par rapport ak jeunes yi nga xamante ne ñoom ba léegi yi ñuy gis exemple doyu leen. dem rek la ñuy gis Tata Degene dama leen yërëm franchement. maa ngi am nag message bu kenn ci ñoom du ma wax turam garaawul dama ko mere woon ba dama ne woon damay wax turam mais garaawul amul problème. Mhm, soxla ko euh, nee na nee na ñi dem ils ont leur raison qu'on pas comprendre si dans leur situation di nga xam bu baax. Mhm. en plus c'est le destin ah noonu la ko simplalee c'est le destin. Mhm, moom loolu la wax. ma am témoignage nag beneen jigéen. nee na moom jamono ji kat ñibbisi na Sénégal. waaye bu sañoon de kenn du dugg ci gaal gi. moom ci gaal gi la jaaroon. ba muy dem te copain woom moom ko si dugaloon. Euh, tey jii du fi sax toog di wax ndax kon dee na mhm. ndax ci biir gaal gi nee na mu jëntal gi copain bi moom moo doon jël bu wàllu mbiskitam mhm. moom la ko doon jox wàllu ndoxam loolu moom la ko doon jox looloo tax tey jii kat euh, mu mu nekk fi mhm. mën a wax di témoigner mais nee na daal gaal gi métti na métti goo xamante ne lam ca dund yëpp mënu ko sax wax ci message waaw ba tax na daal du ko digal kenn am naa tamit euh, témoignage yu bëri nañ Tata Degena. moom mais tey comme dama am. moom moom moom dafa dem dellu si. dafa dem dellu si. Mhm. moom jamono jii mi ngi Sénégal ñibbisi na. Mhm. waaw mhm. témoignage yi ma am bëri na ci Facebook bi comme yu si téléphone bi. waaye tey dafa am nit koo xamante ne Tata Degena dafa bëgg témoigner. wax jaar jaaram ndax dund na si euh, émigration lu metti loo xamante ne. foog mu wax ko euh, téléspectateurs yi wax ko jeunes yi nga xamante ne tukkee ngi seen xel. ndax ñu mën a dellu si Tata Degena. def lu dul woo ko rek moom mi ngi Italie. Mhm. bàyyi ma woo ko rek comme ça ma jox leen ko ngeen mën a waxtaan ak moom. incha allah mhm. incha allah. koo xamante ne ne dund na lu ni mel. day mhm. yegg koo xamante ne yegg na waaye maa ngi doon wax ni moom moo doon wax ni pauvre frère am. suul na ko ci désert bi. mu nekk euh, lu doy waar loo xamante ne dund na ko. te am naa ñeneen sax tata Degene ñoo xamante ne tam bëgg nañ témoigner. xam naa Félix suba dinaa. Mm. dinaa leen woo ñoom tamit. incha allah ah, ah, ah. waaw di recueillir seen ay témoignages mm. am na solo. Zey bul fàtte ni tamit euh, ñoom mm. émission bi ñoom ñoo ko. ñoom ñoo ko moomuñu ko c'est très important. mi ngi ci ligne bi su fekkente ne euh, allo. allo yi. waaw ku baax ki na nga def. ñu ngi lay ziar. ngi lay ziar bu baax a baax. waaw yéen a ngi ci jàmm. wallaay wallaay euh, yaa ngi bitim réew. allo. allo ma ne yaa ngi bitim réew. allo. alo yi. waaw ma ne yaa ngi bitim réew. waaw maa ngi Italie. waaw waaw ban témoignage nga ñu mën a def ci forme immigration yi. Tata Birame balaa boobu damay jërëjëfal Tata Ngoné ngeen invité. alhamdulilah. parce que résumé na thème. Mhm. Mhm. Euh, man li may wax mooy libi laa jaar. libi nga jaar. waaw ak 2007. Mhm. pour ñëw Italie. Mhm. bi may départ maa ngi ak sama frère mhm. moom ci yoon bi la mujj defee. Euh, sonn nañ ci yoon bi sonn koo xam ne. nettali ko sax doy doy waat. ndax loolu nañu daanaka trois mois yoo xam ne dañuy dox. toog toog ngeen 3 mois yoo xam ne. dañuy dox. dangeen di dox ci désert bi. wa wallaahi. Mhm. naan ndox. Mhm. lekk moom waxuma. Mhm. man foofu laa mës a xobu garab. fa nga mës ci désert bi nga mës a lekkee. xobu garab xobu garab. te tataa dégg li si gën a doy mooy àndoon nañ ak nit koo xam ne. yaayam. ak yaayu benn ministre bu mag bu fi nekkoon. ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. dafa am lu ko poussé mu dem. Mhm, dafa am lu ko pose mu dem. mu dem. ndax mhm. sonn gu yaayam sonn. ndax sonn gu yaayam sonn. moo tax il faut ñu delluwaat ci solidarité. ci solidarité man nag maa ngi digal bépp sénégalais. bépp jeune. immigré bu légal sax. jaadootul. waxumaa bu légal. et eh, dinaa xeex man. ba benn zone du génn. Mhm. ba yéeg ko parce que jaru ko te gis nga c'est-à-dire li gën a di jàllale nit ñi. Mhm. ay sénégalais. Mhm. kon danga bëgg a wax sénégalais yi ci jëm boppam ñoom ñooy passeurs yi nga xam ne ñoo leen di jàllale ci désert ak libyens yi. ñoo ñooy ñooy collaborer ak libyens yi. ak libyens yi. di fayu di leen jàllale. tata toog naa ay at mënuma xool. désert xam nga lu tax. mënoo xool. désert. Mhm. désert sama suul. ci désert bi. waaw bi ma ko suulee dox ba yàgg wàññeeku. suñ mhm. jël mhm. jaara bi mu takkoon xamatuma fu ma ko suul. léegi léegi li ma bëgg a xam. mooy seen jaar-jaar bi leen dugal ci désert bi diggante bi ngeen jógee Sénégal ak ba ngeen di yegg ca désert ba naka la demee. waaw metti parce que dañu jël avion. dem Maroc. bi ñu demee Maroc. Mm. sénégalais ba ñu xamante woon. Mm-hmm. moo ñu boolee ak benn waay. Mm-hmm. ñu nekk dix neuf personnes. ngeen nekk dix neuf personnes. dix neuf personnes. Mm-hmm. waa ji dafa ñu koy jël ñu bawee ba somb rek ñu garale ñu fanaan kenn koy ko waa ji moo leen dugal ci oto. ci oto waaw. jóge euh, Maroc euh, tàpp topp désert bi. topp désert bi. ñuy dugg di génn. ngeen fay ko ku nekk ñaata. maa ngi ko fayal man dix cent huit cent mille. huit cent mille dix neuf ngeen dix ngeen. waaw mu dugal leen ci oto yéen ñëpp ci ginnaaw. fas yéen ñëpp ci ginnaaw. waaw jël jël jël désert bi tëj leen ci biir jël désert bi. tëj ñu ci biir jël désert bi fooy jaar sax doo ko xam. Mhm. ñuy jàpp ko noonu jàpp ko noonu jàpp ko noonu. ngeen daw ñaata ngeen daw ñaata temps. ba diggante Maroc bu ñuy génn Maroc ak ba ba ñuy dem Libye. Mhm. diggante boobu ñu ngi ko def un mois sept jours. kon daw ngeen euh, ànd ngeen ak oto bi un mois sept jours wala oto bi dafa am fu leen bàyyi ngeen tàmbalee dox. oto bi dafa am ba mu ba ñu am ñun un mois six jours. Mhm. dafa am fu ñu bàyyi. Mhm. am foofu tamit ab Sénégalais lañ joxe kat. kon da nga bëgg wax ci diggu désert bi am na yeneen sénégale ci mafia bi yoo xam ne ñooñu ñoo leen di jëlaat. booy départ Sénégal ba ba ngay dem Libye. ba ba mhm. ngay génn bi ba ba ngay dugg Italie ay sénégalais ñoo fi kon ay sénégalais ñoom ñoo nekk ci yoon bi na ko ngeen di leen fay nga xamante ne ne que ñoo ñooy def boulot boobu. mais base bi Sénégal Sénégal lañ ko commencé. Mhm. Sénégal lañ lay wooyee amal na ci yoon bi. Mhm. ñoom ñoo lay jox même numéro sénégalais yi nekk ci yoon bi. kon mafia kon mafia boobu mafia bi ay sénégalais lañu. rek ñoo ci teew. léegi yaa ngi naan suul nga sa frère propre frère ci désert bi ban moment ngeen commencé yëg metti metti ak wor moom daanaka bi ñuy départ man Maroc lañ ko commencé sentir. Mhm. la commencé sama bopp day bi day métti. Mhm. mais mënatuñu woon def moo ko waxee muy mën a ngeen. ñu ànd dem. Mhm. affaire bi daanaka ci biir. biñ demee ba nga xam ne mënatuñu ci moom laa mos a gisee nit ku faatu. ci moom laa mos a gisee nga suul ko ci diggu désert bi. suul bu ñàkk solo da ngay wax rek suul. dëgg matuwaay yoo ko gasee. dëgg la léegi après su ko defee ngeen continuer 19 yooyu wala 26 yooyu ngeen continuer di doxaat. waaw bi ñuy egg Libye. 11 mhm. personnes ñoo ci des. 11 personnes. kon su ma la déggee ñu ci bëri des nañu foofu ñu suul leen wala bokk ñu bàyyi leen noonu. wala dañuy dox ba mënatu ñoo dox ñu bàyyi leen fa dem. ndeysaan. dund nañ wala dee nañ wax dëgg yàlla. Mm-hmm. te désert bi dañuy dox ba si yàgg ñu teg ci nit ku tëdd. Mm-hmm. ngelaw li ëpp ci kawam. Mm-hmm. nga xool ko fekk na faatu na ji yàgg a yàgg. ngeen jéggi dem. ñu jéggi dem. ngeen di topp di dox di dox di dox di dox. topp ko di dox. di dox mhm. ba egg libi waaw bi ngeen yeggee libi ak métit boobu yëpp sëy ak nga ne naa bu góor. léeg-léeg xale bu ko. léeg-léeg nga gis xale lu góor bu nangu sëy ak naar bu góor pour mu jàllale la. mu mhm. mhm. ngir ngeen yegg libi. jeune sénégalais yi. libi la ngeen ngeen léegi nag bi ngeen demee ba libi léegi nag mu desee leen beneen épreuve. Mm-hmm. mu des nag bi gën a garaaw mooy kii. mooy. mooy man bi ñu demee ba libi nag mu des bi gën a garaaw muy war a jël gaal gi dem Italie. ngeen war a fayaat. wala fayaat. ku nekk génnee ñaata. man foofu fay dans deux cent cinquante euros. deux cent cinquante euros ñu dugal leen ci bateau. ñu dugal ñu ci bateau. Mm. bateau déedéet bateau la gaal. comme gaalu sénégalais yi comme gaalu sénégalais yi. waaw. ngeen nekkoon ci biir gaal bi ñaata. gaal gi def nañu ci une semaine une semaine lañu def. ñaata ñaata sénégalais nekkoon ci biir. bari nañ ku obligé am nu ma ko compter bari nañ trop trop trop une une semaine une semaine une semaine ngeen yegg. une semaine lañ def. Mm-hmm. ba ci biir géej gi ab benn avion. tubaab ñëw. hélicoptère. Mhm. Mhm. pour récupérer quelque. Mhm. dem ñëwaat récupérer quelque noonu noonu bato ba ñu wàññeeku. après bi def gaal yi ñëw. bato yi mag ñëw leen ñu di def dugal leen ci bato yi. après ñu yóbbuñu itam. loolu ngeen dund loolu li euh, fu mu nekk nii ba ngeen yeggee ci wàllu xel ak ci wàllu jëmm lan moo fa des. man moom dama dofoon. farlu. ndax toog naa fi ay at su ma gisee suuf sax damay mel ne ku taxaw sama sago. ci laa xamante ne benn tubaab. bu nekk ci benn hôpital. moo ma récupéré. di ma jàppale. di ma jàppale. dugal ma école di ma jàppale ba ma mën a récupéré waat sama bopp. mais franchement dama dem naa ba léegi bu ma sama photo frère mënu ma ko xool. tur bu mu tudd mu mënu ma ko wax. Mhm. ba léegi dafay des. ñii nga xam tàmbalee ba léegi dama koy seetaan ak wongoñ rek. Mhm. ñii ngeen bàyyi Sénégal est-ce que xam nañu ne loolu ngeen daj. maanaam fu mu nekk am na ñoo bàyyi Sénégal ñoo xam ne xëy na ñu ngi dund ci sa wërsëg ce que xam nga li est-ce que xam nañu li ngeen daj balaa ngay yegg foofu yépp non xamuñu ko. Mhm. man bi ma demee ba dugg Italie ba egg benn Facebook sama nomu frère bi ak photo mag lépp. di ci bindanteeg waa kër gi mel ne comme moom man man ñu leen. Mhm. dañ koo arrêté Facebook rek la mën a utiliser mais mënul wax téléphone. kon ñoom ñu ngi defee ne mu ngi dund. non mais bi ma demee ba xam ne loolu sotti nag. laa mhm. mhm. ci waxtaan ak sama benn papa bu nekk fii. expliqué ko moom moo leen moo expliqué ñu ngi lay remercier ban ban ban. ban dernier message nga bëgg jàllale. li ma bëgg wax mooy sénégalais mhm. ñu xool exemple jeunes yu mel ne Ndiaga Ndour. Mhm. Pape Cheikh mhm. ay ñoom Bougane. ay ñoom Boubou. Mm, tedd teraanga teg génnuloo. jom fula. man dinaa xeex immigré waxuma la immigré clandestin mais immigré. dinaa ñëw Sénégal côté côté sama bu ne ma taxaw fa ku ñëw ma jox la nga lire. Mhm. lépp lu ñuy dund. Mhm. waaw parce que nag teraanga. Mhm. sa réew. ñi ñuy fekk seen réew lañ ko amee. dëgg la. waaw maa ngi jéggalu bu wér. coono boobu yëpp am na kayit ba tey. fi nga fi nga fi nga fi nga nekk am nga kayit. déedéet amaguma ko. amagoo kayit. ñu ngi lay remercier ci sa courage. di la remercier ci sa témoignage jërëjëf. merci defe naa ni Ngoné. allahu akbar dama lay jox. lu émouvant allahu akbar <laughs> dëgg la waaye nee naa la il faut que Sénégal yi dégg dégg ko foog ñuy gis mmh. dëgg la mmh. Mmh. dëgg la xale lu góor bi yow laay jëkk wax ni massa dama lay jëkk wax ni massa ndax daj nga épreuve boo xam ne ñun ñi toog nekkatuñ fi. ndax maa ngi na ci désert bi ni nga fiy denc loo bëgg. ci condition yi ngay wax ba bëggatoo dégg lu ni mel. mais li ma gën a troublé. mooy bi nga ne jéego nga yenn jéego bëgg dellu si jël bàggam. te mënatoo xam foo ko def. ndax suuf si maasaa loolu désert suuf rek la. ngelaw li daw na. yépp dem na. waaye mi ci sa xol. yàlla mi ko sàkkoon itam nag. ñu ngi koy ñaan mu teeru ko mm-hmm. mu dëkk ak Moustapha alayhi salaatu wasalaam tabaxal la fa kër gu yaatu goo xam ne gi bés bu matee ba mat mm-hmm. di nga fa dal ba dalal fa ay nit yàlla la ko yàlla defal mm-hmm. franchement su doon da dañuy ne kayit dañ koy mérité ma ni mérité nga am kayit euh, émigration clandestine ajaratu li ci metti mooy fay na ay famille dëgg ndax nit ñi dañuy ànd. xam nga ñi ñaari doom baay yu ànd lañu. waa su yàlla defoon ci màggaayam ak sañ-sañam ñu des fa ñoom ñaar. boobu néeg bu dee ñoo ñaari fa ne du fay. boobu néeg du jeex. ñoom ñooy góor ñi ñoo yor baat bi ñoo yor sant bi war a wëy ñoo yor lii taxawal famille bi ñu jël seen bopp bay ko ci suuf mm. ngir wuti lu ñu am mm. bu suñu borom yàlla gàntaloon foofu noonu ñépp mm-hmm. loolu fan la jëm te man waa Marène. Mhm. kër Ajaratu Thiaba Maar ma di ko mhm. nuyu. Mhm. ànd ak chef de quartier ba ànd ya. ànd ak délégué de quartier ya. ñëw fekk si ma ci sama bureau. ne ma sunu njaboot la ñuy wër. ndax xale yi dañ fi jëlee gaal. dem nee nañu àgg nañu ñii ne àgguñu. ñii ne ñu nga ca kaso ya. ya ca nekk intermédiaire ñii ne nekkuñu ca. njaboot yi ñee xamuñu seen doom dem nañ xamuñu seen doom demuñu. dañoo bëgg nga jóg lijjanti ñu loolu. waa loolu. ak ki may xam ne dina xam boppam yaayam dina xam boppam mm-hmm. Mm-hmm. ñu ne boroom këram faatu la mm-hmm. mu dëj muuru sëyaat xëy borom kër ga agsi ni ko ñëw naa de man dama am problème accident c'est-à-dire ce psychologique de société famille bu jeex deewin bu ñaaw suulin bu rafetul ndax ñun suulin bi yaakaar la ci ñun. Mhm. soo demee da ngay jàpp ci sa xel ne mi ngi nii tëdd fii. dëgg la waaye soo mënula am loo matérialisé. ku nekk xam na ne néew rek ay nit ñi xare nañ ci ay ati ati at. indil ma sama néew xare nañ ci. mais yow mi ko defoon sax xamatuloo foo ko def. ci ci kàttanu suñu borom yàlla. donc combien de famille. comme la combien de famille. Mhm. caaro yi fii samay mbokk. Mhm. samay xarit samay mbokk ma dëkk ak ñoom. combien ont été mhm. samay maas mhm. ñu bokk classe àndandoo ba màgg mhm. livre sax bind nañ ko ci film sax def nañ ko ci suñuy taaw ànd dem kenn dellu si wul quartier bi yépp mëdd waaw léegi loolu lan mooy njëriñam la cest lan la jar doy lan la jar tey lan moo tax nit di war a béye noonu boppam ci dem goo xam ne dootoo gis ndey yàlla la wóor dootoo gis bàyyi yàlla la wóor dégguloo jàkk juy nodd dégguloo caada dégguloo famille xamuloo kenn am nga kay di ko am naan euh, mami forme suicide la mm-hmm. ah. donc suicide collectif boobu lan moo ko wund mami dañuy dem publicité loolu waral loolu lay gën ci ndax fi mu toll nii moom waaw waaw xam naa xam naa xam naa mm. nañ dem publicité dellu si mm. ànd ak euh, Fatou Bakala macha allah euh, Coca Cola ànd ak Karoskin mm-hmm. Fatou Bakala macha allah fa dem publicité dellusi si Vieux su ko defee ñu wëy di wëy di wëy rek ba ca rubrique fësal mbaax jërë ngeen jëf jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi am mbégte nag dellu see gi yéen seen ñaareelu xaaju émission bi di wareef télévision Futur Média seetu askan wi mm-hmm. ñu nekk rek ci mbiru immigration clandestine ma mi xaaral ma jox la parce que euh, defe naa ni li fi jaar dafa bëri te soxna Ngoné am na ay yeneen paquet yu ma bëgg mu daaj déet xam nga yaabooy li may wax ne mercredi bu nekk man damay duggaat école rek loolu mm-hmm. dëgg la mm-hmm. ndax xam nga boo toogee ki la gën a xam mbir mi moom da ko ci cofal tuuti ubbil ko ay kii rek mu dem mm-hmm. xam nga sànq moom sama xol tooy na lool ndax dama xam li nekk ci diggante mbokk xam li nekk ci diggante famille kii li mu daj ba dem moo ne mi ngi dundal fii ay sénégalais yor na fi kër yor na leneen ak leneen est xam nañ coono bi mu daj ba dem est ay mbokkam yi toog fi tey ñi koy jéem a nax wala ñi koy jéem a leen est xam nañ fan la jaar ba dem kon ñoom itam nañ leen di delloo njukkal ci façon dem bu metti boobu ñuy dem mais yaa ngoone état bi itam na taxawaat wax ak ñi mu ko séqal xam nga lu tax xoolal kii jaay na bakkanam jaay na bakkanu frère am kañ la xam ñoom ñooy ñan fan la ñuy ba am kayit mm. nga jaar ci coono boobu yëpp tamit nekk fa ñaata at mm. di plongé mm. di marchand ambulant di daw a dàqanteeg police di def leneen ba xëy benn jour am fa problème bu ndaw li ma la waxoon mm-hmm. mm-hmm. waaye boo demee ba métro bu la raw nga ne naaxaar bii ñëwaat mm-hmm. bu boobaa ñibbisil boo tollee foofu nag mu gën a metti yaay dëggeen nañ ko xoolaat xam ne daal man jàpp naa ne kii wax rek ak yaa ngoone li mu wax doyoon na émission bi ndax ku déglu yaa ngi dem ci gaal. Mhm. dafa am boo xam ne ngóor na su ma ko suñ ko bàyyee. Mhm. te taxawuñu ci daanaka sénégalais yi dinañu mere. Mhm. parce que xam nga euh, bi ngay ubbi émission bi da nga wax ne gisatoo fi solidarité. gisatoo fi solidarité gis ñu bëri gisatuñu la tax ña daan wax sénégalais. gisatuñu ko ci réew mi ndax manque de solidarité mooy mm-hmm. jëñ xale yi nii ci biti kii euh, wax léegi ci biir waxam mm-hmm. dégg nga nee na am na ku mu àndaloon koo xam ne yaay ji ak benn ministre bu am xaalis ñoo bokk ndey ak ko bu kawe mm-hmm. kon mu am ma foog tamit ci wexam ne senegale mooy manger sénégalais. parce que nee na début processus bi soo jugee fii. ba ci fin ba téléphone ñi lay jox ay sénégalais ñoom ñooy defante yooyu. kon sénégalais boo xamante ne ne que nga. Maroc wala ma nga Libye ma nga ca désert ba ma nga Lampedusa xaw ma fan te état bu ci nekk kooku mën na la rey ndax teraangaam te muy doon sénégalais mhm. defe naan loolu il faut ñu taxaw ci dëgg la il faut xam ne ñun ñii ñoo koy defal mhm. parce que sénégalais dafa yomb muy ji naan ñàkk yeeg étranger yi mhm. waaye lu bon lii mafia bi nañu xam ne ay sénégalais tout à fait waaw tout à fait soxna na euh, manque de solidarité bi am ci suñu réew mi fi mu nekk nii dafa exacerbé maanaam dem na ba kenn amatul limite boo koy may xam nga xale bu góor boobu nga xam ni ñoom ànd nañu ak moom wax ne kilifa bu kawee kawee kawee la bokkal kon kooku dafa mel ni dafa takkaayu pour xeexal yaayam ndax dafa ni coono yaayam moo ko tax a dem doonte am na mbokk mu kawe mbokk mu kawe moom ministre la tudd mais mbokk mu kawe bépp fànn mbokk mu kawee sax mhm. ci ci dimbalu waxtaan xam nga dimbal waxtaan dina dimbale ni dëgg la delloo si dina dimbale ni dëgg la xel dina dimbale ni dëgg mhm. dina dimbale ni mhm. waaye sempi sànni woykat bi dafa wax ne am na ñoo xam ne bu ñu duggee ci xew am ku jóg léegi neen am chaise a ngi nii am ñoo xam ne dañuy ñëw ci xew taxaw suba ba ngoon non seulement chaise bu nu am dañ koy joxe waaye bu ñàkkee chaise kenn du leen dimbali lan moo tax seen nit war a mën a gën nit wala boo gën ko dund ko moromam tey xale yi nga xam ne ñooy génn li tax bi may ibbi sama propos ma ne nañu étudier d'abord la société sénégalaise. Mhm. Mhm. société bi moo leen génne. Mhm, jërëjëf quoi qu'on dise. société bi moo am melokaan boo xam ne. soo amul mënuloo bokkoo ci dara. sa biir kër nawloowuñu la mm-hmm. mbedd mi fonk ñu la lu ñu fi sàcc yow la mm-hmm. bu ñu fi jaayee drogue yow la mm-hmm. bu ñu fi sàccee xale yow la bu ñu fi violé nit ci kër gi yow la bu ñu fi bugg bu ñuy waxtaan da ngay génn ci biti quel que soit ton âge bu yeboo nag sa rakki rakki rakkaat moo mën mooy teew ci daje bi mais yow ci biti nga jëm donc c'est la société qui a expulsé les enfants loolu moom mooy li li wóor mais xale bi tamit li oustaz kii Fall wax euh, oustaz Sall. Mhm. bu teete bu Sud FM wax. Mhm. ba jooy Alioune mhm. ci ci ci émission bu mag boobu ci RTS. wax ni doom. bu yàq tubéyam xale buy dem. ku koy tataf mm-hmm. mm-hmm. c'est-à-dire société sénégalaise mm-hmm. bu wexee ay doomam nan la yaakaar tubaab bi for ko nan la mun a xalaatee ne bu demee tubaab bi dina ko naw yow mi xeeb ba jëñax sa njaboot ba sànni sa njaboot ci kaw lan amal rek mbaa nga mën maa soxlawu ma loolu fan la ko nit mën a teg loolu moo waral nag tey suñu sénégalais yi ne ci processus bi du début à la fin bu ñu la jëlalee avion c'est juste pour aller jusqu'au Maroc ci ñi nga ñi daan jaar Maroc di jaar ci ci di jaar ci ci ci cours d'eau bi mhm. di fël la Europe si ñëppa daan jaar foofu pour mhm. daanu Espagne mhm. ñoom ñëpp bu ñu xasee ba egsi Maroc xamatuñ la dañ lay bàyyi ak ñeneen nit ñoo xam ne c'est pour ñu sànq la ci biir ndox mi c'est pas pour ñu jàllale parce que xam nañ ne dem mais ñoom li seet rek mooy xaalis bi ñuy am depuis Dakar ba Maroc ñi nga xam ne ñoo këpp gaal xam lu xew maintenant système Libye bi xew parce que libi fi mu ne mooy yoon bi gën a gaaw te gën a bu ñu la indee ba Libye pour nga traverser ñoom am na ñoo xam ne dañuy wax seen nawle ya ca beneen buuba mhm. ñooñu xamal leen ñun mhm. dañ fay pour fii kenn bu mu fi jaar mhm. dañ leen di tontu ni seen yoon newul si loolu ñoom li seen yoon ne mooy gaal gi na tëmb rek te départ parce que dañu war a fay même su fekkee dañ koy këpp seen yoon newu ci donc gaal yi ndax dañuy def queue de poisson gaal yi këpp ndax dañ koy wëndeel parce que mënuma comprendre yow nga ni danga ñëw nekk Frontex te nag jiiñu ma leen dara bu ma kenn yóbbu ci yoon tax aw ma lu ma fayee <laughs> te mënuma défendre sama bopp mais mënuloo ne yow Frontex nga nga ñëw ne 800 cent personnes périr nañu tey ci benn gaal mm. noo ko wàññe mm-hmm. noo ko xamee mm-hmm. loo ci boole mm-hmm. waaye mënoo tiim taal say faar taal say projecteur wàññ xam ba pare yëngal sa gaal yëngal géej ci remis ménage ba gaal ga këpp nit ñi dee nga ñëw ne tant de nañu man tey na sama xel bëgg naa ci lu ma leen man tey na sama xel parce que rôle état foog ñu indi ko te Frontex laa ni mhm. wax naa ko ak ambassadeur yi ma miin xam leen ñuy samay xarit mhm. wax naa ko ci ay table de réunion wax naa ko ci ay table yi ma ko mën a waxee mhm. mooy que ni mënuma nangu ñuy jël alal ju bëree bëree bëri di ko teg ci géej di gàdd doomi aadama te mënu jël alal jooju fixé ko xale ci seen terroir ñu liggéey mënuma ko comprendre bala bala bala bala ñuy jóg bala ñuy jóg ça je ne peux pas le comprendre et je ne comprends pas que nos états euh, lu rëy responsabilité locale mhm. parce que nit ku nekk kër nga génn mhm. bu kër nga bañee mhm. communauté bi bañ la collectivité locale bi ñuy wax mairie bi may dugg rek dama la indi ci ay gaal ñu téye xale ya mairie bi te am ay nawle mairie mhm. ma ciy tudd fii ajaratu ñoo ji Njaay ma nekk Forli mhm. di sénégalaise mhm. di liggéey ci benn société boo xam ni mu ngi employé six cent dix-huit sénégalais yu fa nekk mais ci biir société bi am na quatre mille yi mais sénégalais noonu lañ fa tollu am fa responsabilité seen patron bi ne man moom pare na pour defal leen eh, usine bi fii ci Sénégal ñoom ci biiru ganaar la ñuy yëngatu la ko dale ci nen ba produit fini ñu ñibbisi fii pour ñu ñibbisi fii ñoom en tant que sénégalais téye liggéey bi mais wan ko mhm. parce que bu dee usine ba am na 3000 à 4000 employés ñoom ñu mhm. nekk fa 600 mhm. donc il faudra combler diggante 3000 4000 ba 600 ay sénégalais doon ñu recruter waat ci dëkk bi dugal leen ci société bi pour ñu liggéey nekk fii ci dëkk bi ñooñu njaay ŋàbb dossier bi indil ma ko ma yóbbu ko yóbbul ko président ca ba ma fay ne président saytu ko ne dana ma tontu diggante bi yàlla gàttal yoon bi mu ko pare na pour jël alalam mhm. boo lekk sénégal yi ak projet bi yóbbu Sénégal mhm. man nekkuma ci nguur gi nekkuma ci état mu nekk lu naroon ma fekki lu war a neex parce que mm-hmm. jeexagul mm-hmm. lu war a neex ma fekk koo xam ne yaakaar naa ne xam-xamam ak liggéeyam fa la jëm mm-hmm. moom moo ma joxoon portable ma defal ko ci message ni ko bis sàngam waxtu sàngam sénégalais yi ñu ngi toog ak meeru tel dëkk di wa ko yore dina leen boole ak ñetti milliards ci Sénégal bëgg nañu dellu si ak projet bi kooku tontuwuma sax accusé de réception neewuma ah. ah. jot naa sa message ah. parce loolu man maa ngi ko tuddee ma ak culture gis nga nit même boo ko naan bul ma woowati da koy bindal dal. kon xam nga xale yi. Euh, euh, dañ leen war a loolu mooy mooy faj góom bi fixé mooy faj góom bi dañ leen fi war a téye waaw leen boobu euh, defe naa ni ne bokk na ci solution yi nga xamante am nañ ko waaye dafa am rubrique boo xamante ne ne dañ ko tuddee fësal baax mm-hmm. fësal baax ngoon yow la intéressé la mm-hmm. ndax tamit dañu bëgg xale yi am ay repères. xale yi xam ne fa tabaarakalla macha allah am na mag ñu baax ñu fi nekkoon. ñoo xamante ne di œuvrer dans le social. wallaay lu baax ñoo xamante ne daanaka ñoo construire seen gox ga. Mhm. construire société bi. ñooñu référence yooyu. la ñuy dem jëli. Mhm. yaa xam ñu jiitu. Mhm. Ah, ak ñi nga xamante ne ñu ngi dund. am na lenn loo xam ne def nañ ko ci. mu am une brave femme boo xamante ne nekk dafa nekkoon Thiès. tamit di œuvrer dans le sociale ñu ànd dem seetaan euh, dellu si xam naa ne ne que su fekkoonte ne bokk woon ci benn ci biir wareef dinañ la seet si. rubrique fasal <laughs> baax waaye yow ci biir wareef nga bokk. waaw waaw fii nga bokk nañ dem nañ dem seetaan léegi dellu si ani Babacar Babacar tamit dañëw urgent urgent urgent urgent ingénieur du son Babacar. urgent. Mm-hmm. kon à tout de suite. toll woon na foo xam ne ku ca toll woon munoo woon a dépassé def li nga xam ne moom def na ko. Thiès rawatina quartier bii di jaxaaw dox di ko jooy ba léegi ngir jëf ju baax yi mu dëkkee woon ak waa diwaan bii. ku sa rongoñ daloon ci sa dënd boo dikkee ci këram gi mu fajal la ko. defante bu rafet lay defante ñoom néew gi doole yi kange dina leen dimbale miskin yi kange dina leen dimbale ku daan def lu baax di mu bokk ca te daan sol dàllam di dugg ci nit ñi ba seet kenn ku ne li nekk ci sa xol ci lu loo xam ne lu jax-jaxi la mu fajal la ko tam xarit bu ma saan jot ñu bëri duñ jënd cere mooy mooñ cere defar ko ba mu baax jox ñépp ñëpp man de ñu ñu daan njëkk service cere ci ci laa bokkoon am yërmande baax am diine am lislaam di nitu ñëpp nag amul sens interdit fenn. gane àdduna si dëkk bii di Thiès ci atum 1928 Adja Kange Dieng doonoon na soxna su fës lool ci wàllu politik rawatina si biir parti socialiste fii si diwaanu cees ci jëkk def politique fii ci Thiès jigéen ñi ci la bokk jigéen bu jàmbaare la woon Adja Mantulaay Dieng daawul dem mukk te yóbbuwul Kange Dieng. bu mënoon li def bëggoon ko xam bëgg nit ñi dimbali. bul bëgg ci dëkk ba dëkk fa na la dëkk ba bëgg nga dëkk fa. moom dëkk bee ko bëggoon. du social daf ko daan def bu baax a baax a baax am na ñu bëri ñoo xam ne kare ñoo leen wóor leen wutal liggéey ñu ma xam man. fu nit soxlaa fi mu nekk am aajo boo ñëwee seet si ko doo delloo koy neen bëgg-bëggam yëpp moo doon servir la nation euh, le quartier de Diakhao servir la population de Diakhao nit ñu mel noonu léegi dafa jafe léegi danga parce que nit ki boo ko gisee mooy dem léegi intérêt am lay jiital moom nag intérêt population bi la jiitaloon au lieu que amoon yitte lool ci goxam bii di jaxaw Adja Kange lawaloon mbaaxam ak yërmandeem ba si tuut tànk yi rawatina ci taalibe yi. nu ñu mel nii ñun ñoom ñoo ñu tette ñoo ñu ci yar su ma la waxee ne këram gee taalibe yi euh, mère soos lañuy ñuy wooyee ñu ci kër gi parce que taalibe yi bu ñu ñëwee daf leen daan beral bool bool. bu jógee école normal di booli soos mu di ko jox taalibe yi jënd ay mburam def ci mu lang ba léegi école normale amatul internat amatul mais ba léegi loolu mooy daw ci kër ga ba fi mu ne nii taalibe yi bu ñu jógee fii bu ma leen fu ngeen jëm ñu ne ma kër meer soos sama yaay ci boppam àllam daaw ko boole kenn def daan joxe di joxe di joxe ba boo dendee moom sax mën a abal ma nit ñi mën a abal ma nga abal ko mu joxe ko ma am naa sama rakk joo xam ne ba mu ca tolloo euh, maire bi moo ko génne ca la mu ne woon yóbbu ko jël ko comme maîtresse maternelle mu jëleeti ko fa parce que loolu doy ko mu jëleeti ko fa yóbbu ko mu nekk maîtresse de coupe et boobu ñu ngi benn foyer de la femme bu Jean Collin ubbi woon soxla woon ku mu fa nekkal mu teg sama rakk. mbëggeelam si gox bii di cees defoon mu nekk jigéen ju jiitaloon ndimbal ci digganteem ak waa gox bii. la mu amoon yëpp da koy seddoo ak doomu aadama ñi ci amul kër dina leen dimbali ñu am kër ñi ci amul dépense dina dox ba dimbali leen jox leen ñu am dépense ñi ci am aajo ordonnance bi mu munti noonu boo ko gisee dina yëkkati lu mu lay jox loo xamee ni lii di nga ci mën a faj say aajo. kange mu juddoo ci ndeyam ba léegi. lu baax rek la fi am xolam nag comme comme perkaal amulul kenn benn xol bu ñaaw. génn àdduna ci atum 2007 kànge bàyyi tey jii fii ci jaxaaw vidde bu dara mënula dindi. xëy na yàlla def li ko neex jël ko mu dem mais jaxaaw wa nga koy jooy ba léegi ni si. baax la woon ko amoon yërmande ku daan dimbali jàmbaar la boo xam ne bëggoon Cees bëgg jaxaw nekkoon responsable ci quartier fonkoon quartier bi lool lool fonkoon ay dëkkandoo fonkoon ay xarit mënoon xarit am loyauté mbokk téléspectateurs yi rubrique fësal mbaax euh, Adja Ngoné loo wax ci suñu rubrique fësal mbaax. muy lu am solo. xam nga repères yi bu ñuy wax ne manqué na. Mhm. di wax Sénégal dafa soppeeku. Mhm. c'est parce que bon pratique yi amoon ak fësal mbaax bii ngeen di def. Mhm. xale yi xamuñu ko jotuñu ci. kon war nañ leen ko won di rendre hommage soxna su baax sii ndax defe naa bi ñuy xalaat bàjjenu gox. fësal mbaax la. ndax lët jël soxna yi daan taxawee ci gox yi lañ bëggoon mu gën a fës gën a leer waaye gannaaw tam léegi Sénégal malheureusement loo yëkkati di ko rafetal ñu ne politique la mm-hmm. kon fii la yelle ah. fii la baaxe ah. fii la jaadoo mm-hmm. ndax fii xanaa kenn du ne dafa am lu tax donc nii ngeen koy defee nag mm-hmm. ndëgën yaatu am na ñoo xam ne daaw ñu jox kenn dara waaye daanañu waxtaan jigéen ba du fay ñu waxtaan ak jigéen ba du fase dëgg la waxtaan ak xale ba mu toog ci ay wayturam daanañu wàññi ci waxtaan jëkkër ba du toroxal borom kër ba du toroxal soxnaam yu bëri daanañu ko def ñooñu itam bu leen leen fàtte gannaaw insha allah macha allah macha allah bu am la dellu si rek hmm. euh, Zey ñu ci ba tey ci mbiru mbëkk mi immigration clandestine Zey yow <laughs> jox leen ba soowu sëy gis nga fu mu nekk nii sëy mais deux semaines yi nag dafa waaru de. Euh, vieux Diouf de chaque semaine ak lu ma waar. billaay waaw bisimilah bisimilah <coughs> fu mu nekk nii tey moom dajji ngay paquet bisimilah. ah taa nee nga suba am nga bu gën a gaaw. am na yeneen yeneen ñoo xamante ne maa ngi ak en contact ak ñoom jamono ji mm-hmm. jël naa seen ay numéro de téléphone yëpp mm-hmm. xam naa suba dinañ ñëwaat ci yeneen témoignage yu am mm-hmm. solo. en attendant nag message naa ngi continuer tata dégg ngeen ci page Facebook bi. Mhm. ñi dañ la naan sama ñaari frère des nañ ci. ñi mhm. naan daan sama frère ak sama nijaay ñi sama mhm. jëkkër. ne ngay dégg mu nekk nii. waaye nag li ñu gën a soxla mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko dund. ba tax na dañuy continuer rek di leen ñaax te di leen wax ne mun nañ ñu wóolu bu ñu ragal a wax. li nga xamante ne moom la ñu dund. nañ ñu contacter rek bu ko defee ñu jàllale seen message lépp ci biir ci kaw sutura lay doon te daa dégg kenn du xam ñoom ñooy kan. incha ngoone ñaari dépense yëpp dem nañ mhm. xam nga mhm. fi mu ne nii damay bind bind bind waxuma jaaja ngoone ndax dama sonn ci ah. ah. bind bind bay bëgg dee <laughs> chaque deux jours ba jeex foog ma seet fi mu ne nii numéro ya numéro gañaay fu ma ko bindoo déedéet déedéet aaju ñu woo leen sax wax ma yow dépense u Adja Ngoné foo ko joxe ban dëkk waaw euh, ab sa sàmb moo gañe tey ji mi ngi dëkk Géejawaay amoo kaat. ak maam Bintaloo. wax ko Adja Ngoné moo ko may dépense bi. ah waaw mami mami mami moom dépense am fu mu dëkk. Euh, de dépense ma mi mooy maam Bintaloo. waaw dépense sama tataa nekk ab sa samb géejawaay. maam Bintaloo fu mu dëkk. maam Bintaloo mi ngi dëkk Dakar. waaw mami. man xam nga sëy sama dépense tey loo ma ci waroon defal. waaw ah, jëndal ma ci mouchoir comme yaa ma yaa ma jooyloo bu ma génnee nga ah. xam. <laughs> waaye may na ko. waaye yow yow yow su doon su doon sa sago ki nga jox sa dépense lu muy togg. Adja luy sa plat. ab sa samb. Ah. doomu lebu la waa bu fekkee ne yàlla may na ko génn sëdd bu baax ak tëlu naq. na ko roof def ko roofu soble togg ceebu jën bu baax. dégg nga lii eh, waay mbaa dina na a na xaw a tooy aslëf nag na am ñeex te na ko ba mu baax su amee macaatu xaru boppam bu dee mu tegal ko borom lii rek la lu maag yow rek lan daal mu def loolu suuraale gis nga fu mu ne ba maquillage yi dañ dee ci suuraale noonu daa bëggoon mu maa ngi koy doog a dégg. yoo xam ne génn sa déggoo nag ma topp ci genn bi. waaw ba de c'est que man tuur yi aussi man tamit man ñu ma koy roof bi laaj ko roof bi roofu lan. soble roofu soble du tuur la ñu roof perte. waaye waaye comme roofu soble. waaye comme Sodo Bousso ñëwoon na mi dema dema ka kaldu la. kaldu ndox kaldu ndox. waaw nee na ñu ngay rëj bëgg ba nag ma ngay fuur maa ngi toog di ko xaar. maa ngay fuur dégg ngeen dégg ngeen Sodo Bousso tamit xaw nañu leen xam naa dañuy def dernier tour de table euh, euh, Adja Ngoné euh, dañu sa expertise moo tax nga toog fi ndax tamit euh, li ma gën a neex ci yow balaa ngay xuus ci mbir da nga koy gëstu li nga gëstu dëgg dëgg dëgg nag xajul ci émission xajul ci émission da nga ñëw rek di ñu baaxee mm-hmm. lan nga ñuy tàggoo fu mu nekk ni waxtu bi tax na dëgg la baax baaxee boobu nga ñuy baaxee mm-hmm. lan nga ñuy tàggoo ajaratu dëggeen damay delluwaat fa ma commencé ci sama société mm-hmm. li tax may dellu ci sama societé te di ko baalu àq nag ñi may waxal ndax euh, suñu imam bu baax ba Sylla Maxtaar yàlla na yàlla teeru ko ci àjjana. xanaa du Maodo Sylla. alaaji Maodo. dafa daan wax ne maa ngi leen di dénk ragal yàlla. ak topp ah, yàlla te lu mu ci waxit dafa naan maa ngi leen koy dénk di ko dénk suñu bopp. di fàttali sama bopp di kon dañuy fàttali suñu bopp. te di jéggalu. Mm-hmm. bu baax a baax a baax société bi. Mm-hmm. la ñu doonoon. Mm-hmm. ba tax ñu nekk toll fi ñu toll. suñu ko wàccee rek gisuñu foogul woon. wàcc nañ dinañ gis lu ñu foogul woon su fekkente ne en général jullit yi suñu borom subhanahu wa taala waxal mun na man nag loolu sama gëm-gëm la te kenn mënuma ci dégg man gëm naa ne am na lu suñu borom doon wax ak ñun ci màkkaran ji la ko dole ci 11 septembre ci guru bi ba ci mun na bii nga xam ne ay doomu aadama yu dul jeex ñoo fi des subhanahu wa wax na ak ñun loolu laa gëm na kenn mënuma ko dindi li muy wax mooy mhm. suñuy jikko mhm. suñuy nekkin mhm. mhm. suñu xol mhm. suñu jëfin est-ce que dëgg dëgg gëm nañu ne jëfinu jullit est-ce que yërmande mu ngi ci ñun est-ce que cofeel mu ngi ci ñun est-ce que taxawu mu ngi ci ñun dëgg dëgg est-ce que respecter l'autre accepter ko des circonstances atténuantes bu ñu gaaw a suul nit bu ñu gaaw a rey nit bu ñu gaaw a boddi nit ñuy yërëm sama papa Alaaji Babacar Ndoye maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla fan bu gudd daf ñu daan wax yéen ñi ñëpp di sama njaboot. Mhm. liggéeyalu ma kenn kër. Mhm. liggéeyalu ma kenn teraanga. Mhm. ndax seen rakk ji. di sëriñ Babacar. moom laa bëgg ngeen xam ni. war ngeen a xam ni moom moo tax ngeen mën a taxaw. ndax néeg boo gis ñëpp ñum képp ki ci yàlla wàññi ku ne. moo tax yéen ngeen am soo sawetaas. kon kër yi. doom yi fi ne. ñii am ñii amuñu. ndax ñi am xamuñu ne ñii amul ñoo tax ñu am. est-ce que xam nañu ndax barke yi ki amul mm-hmm. te xëy na ëllëg ëtt ba mu nar a dëkk loo fa mm-hmm. moo tax suñ borom mel ni ko ko wàññi fii mm-hmm. tay ci jamono est-ce que xam nga ndax kooku mooy sa sauvetage na ñëpp uuf ñëpp ëmb ñëpp dal te Sénégal yi fonk Sénégal te bëgg ko te ñeme liggéey parce que liggéey ñaq jëriñ kenn ku ne place bi nga toog jéem ko mate moo xam maire ba la moo xam ministre ba la moo xam président ba la ak sëriñ bi ku la ñaan loo loo xam ne boo ko ci moom mhm. nee ko lii mhm. làmbal leneen conseillé ko xale yi di tukki bari nañu ci tàggu seen i sëriñ te tàgguñu seen wayjur bari ñu wax ak seen sëriñ te waxuñu ak seen wayjur nañ leen di jox tamit ñoom sëriñ yooyu seen i place ci laay profité nag sant Cheikh Mamadou Lamine mu baax mi mu Cerno Abdoulaye <laughs> xale maag naaj. ndeysaan xale maag coono. wallaay wallaay xale maag gën. yokk la yokk bu rafet macha ma yor ma ba fu ma génn ñu ne madame la ministre wala madame la député. wallaay macha man moom ministre am ak député am la. ci moom rek laay def conseil maa ak teraanga. di ñaanal Sénégal mm. ñu gën a am xolu muñ mais wax sulu doom yi nekk bitim réew ak sunuy rakk. Mm. doore ko ci sama doom yi bopp mbir mi fii la nekk. dëgg la fii la. du feneen bàyyi leen indi partenaire extérieur Sénégal. bàyyi leen indi investisseur Sénégal investisseurs gëm leen seen bopp ñu ànd ci biir Sénégal liggéey ko mu dem ci kanam te autorités yi tamit gën a am fit pour jàkkaarloog Nations Unies ak Union européenne laaj leen seen àq ak seen yelleef ak seen waruwaay ci biir réew laaj leen ko incha allah mami kontaan nañu waaw xanaa yaa dañuy wax ne mbir mi daal li léegi lañ ci jublu woon mm-hmm. moo doon ubbi ko ku nekk mën ci gis mm-hmm. ndax yaakaar naa ne tey yaram daw na mm-hmm. te kenn ku ci nekk yaakaar naa amaat nga jàngat bu bees ndax li yëngal xol yi du def di ca torox waaye nanu xam ne xëy na ka dem mm. wërsëgam moo nekk foofu waaye nañu nangu ne ku ñu fa togg sa palaat nga reeri ko am na koo xam ne tukki musu bokk ci ay mbiram mm. waaye bis ba muy dem daf koo bett mm. waaye ambassade yi itam delloo leen ñu sunu worma mm-hmm. bàyyi bang yi ngeen ñuy tegal ci biti duñu ranloo suba ba ngoon jot te bu ngoon jotee ngeen encaissé suñuy cent mille ak suñuy cinquante mille mm-hmm. lekk ko xale yi bu ñu leen sëkkatalee mm-hmm. leen ne mi yéenay di leen tàggu waaye nag xam nga a comme dafa foor ci man mhm. chaque jour mooy jàpp ci sama combat di ko nuyul magam nday Binta Gueye mu baax moom ndax xam nga taawum nday bu taaweekuwut ba mel ni si ngombal basi fu ñu ko fekk war ko nuyu mhm. waaye delluwaat nag sukkaat ci suuf di wax sama yaay ngoone ndooy eh. delluwaat ñaan la sa wàcc waay <laughs> a sori ci man tàgguwaat Zeyna ba suba ah, Zey ñu ngi lay jox sa wàccuwaay allo Zey waa tàggul tàggu téléspectateurs yi ñu doon seetaan. leen yéen itam di leen wax ba suba. incha allah incha allah te suba yaa ngi amaat yeneen témoignage yeneen yeneen incha allah mooy tuuti di nga di nga eh, na si bërëb billaay maag Facebook bi mami. <laughs> Ah, maag Facebook bi doy na waar. ah tubarkalla macha allah kontaan nañu on off nag ndax jooy na moom itam. li mu laal laal na ko dafa dafa mm-hmm. yéeme. Mm-hmm. Eh, di nuyu waat bu baax a baax sëñ Mbaye Sy Mansour di ko ziyaarat bu baax a baax. tubarkalla macha ah, di bàyyi xel saltige mbay gi jàng bi nekk ci wakaam ñu ngi koy nuyu moom tamit di ko jox wàccuwaayam fatubakàlla masàllaa sëriñ maam Thierno dem ma nekk ca Kaolack mhm. ah fatubakàlla masàllaa ca Casaville ñu ngi koy nuyu fatubakàlla masàllaa waa Medina Baye yépp ñu ngi leen di sargal di ko teg ci loxo imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé fatubakàlla masàllaa ajaratu Fat Samb yaayu séex yi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu sëriñ Cheikh Tidiane Diaw nekk ca Kapa moom tamit ku ñuy bàyyi xel la waaye tamit euh, Paplo Sekere la ma ne ca Louga Chéri Fatou ajaratu Rama Silla Silla Maxtaar ñu ngi lay nuyu la bàyyi xel waaye tamit maam joojo mi nga xam ne mooy taawu yaay di mag ci umu njaay mu ngi ñu toog di ñu seetaan maam joojo ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax fatubakàlla macha di remercier képp koo xamante ne jàpp na suñu combat comme ni ko mm. vieux Diouf di waxee fatubakàlla macha allah di ziar nag sëñ ibalaay bu maam euh, maam raam maam raam xam nga xam nga tey la tey la tey la seen tey la seen événement bi waaw tey la bi sëñ ibalaay ñu ngi lay sargal bu baax a baax wallaay mm. wallaay maxtaar allah di ñaanalaat euh, suñu

Euh, Safila Rose ñu ngi koy nuyu ah di ko jox wàccuwaay moom tamit laay maxtaar a baax di leen jox rendez-vous suba ci kàttanu yàlla beneen émission wareef moytu lu ñu xewle nga jiitu leen ca waxal leen laay laay waaw tey tey tey gis nga bàyyi ruube bi waaw parce Rose moom ma nekk laay maxtaar moo jàpp ci combat bi moo tax damay dama nekk ci mbiru maam raan nag danga may comprendre du loolu de euh.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 Mm. waaw fu mu génn as ah, yii asubaa ah, ji mooy génn fépp. Mm. sama rakk coiffeuse bu mag boobu. asubaa ah, ji na ma woo rek ba pare ma xam moom fan lañ ma nga satisfaire dañu yàgg asubaa ji. waaw mais na ma woo rek. ma wax ko mu woo la. waaw asubaa ji oowal ma mi kon <laughs> kon jërë ngeen jëf. <laughs>